moom ndaysaan dox ci Karim Diouf Doudou Sané bi mooy final bi mbokk yi ñu ngi ci lundi 12 avril 2021 fii ci Ndangane Sambal Leewtoo production moo jàppante ne mu ngi ko bëgg a jaay doole de Doudou Sané nga jaay doole bañ na Karim Doudou Sané génnee na ko Doudou Sané génnee na <laughs> Eh, lamb ji du yomb du yomb benn arbitre bi sifflé waat na ndaysaan Saane ak Karim Diouf ndaysaan ñu ngi noonu Doudou Sané ngi dox ci ko mooy final bi fii ci Ndangaan Samb Leewtoo production moo ñu fowoo ndaysaan jiital ga di Pape Thialis mbokk yi ñu ngi ci 23h 23 23h 23 minutes tey nekk le 12 avril 2021 ñetti compétition yi am yëpp moom Doudou Sané moo finalu ndeysaan ndeysaan Doudou Sané mu ngi woote Ndeysaan Doudou Sané yàgg na lii sama xel dem na ci tàkkusaan ba mu bëreeg booy fay nii la demee woon Ndeysaan démb def na ko bërki démb def na ko bu yàggee day mel ne arbitre yi dañ lay soofantal Ndeysaan gis c'est bon ñëwaat na ci compétition bi moom Doudou Sané sifflé sifflé na. Ndeysaan Karim Diouf Doudou Sané Ndeysaan Karim Doudou Sané Karim a ngi koy déplacé ndax diggante luur la ak boo ko déplacé bu xamul ni muy jugee tànk yi mën naa jóg bu perte équilibre rek di nga ko mën a jël combat bi jeex Karim loolu la bëgg a def waaye Doudou da ko bàyyi ak boppam Doudou Sané ak Karim Doudou Sané na ko. Karim dem mu dox ci koom ndeysaan doole mbaa dina yem en tout cas lu munti xew mooy doole yemul ci combat bi mais defal ndànk Doudou Sané jël na Karim jàpp na ko li mu am na Karim li mu bëggoon li Doudou Sané bëggoon kaw Karim Diouf am na ko daan na ko wala déet taxabal na ko Karim bañ daan. Karim bañ na Doudou Sané njett na ko daan na ko wala déet mu koy waaj na compétition bi Doudou Sané jël na compétition bi ki waxe woon tey fii Doudou Sané jël compétition bi